Eh, Pape Birahim ama jom takk jabar Pape Birahim yaa ngi nekk da ngay dem à la traite te dootu amagum embauchement yow mi tegaa jug sa bopp te ñu laa yóbbu ci maama ni ñu cangar la yow ban maama ma la sangatee kenn sangaru ma dama am jom ñàkk hmm. nga jom yow waxaat la ko Medina lay fekk yow ah, nee nañ am na jabar amul xeer hmm. amul maa ko vérifié Wikipédia waxuma lu leer ci Pape Birahim bi. jërëjëf ma certificat de mariage ma vérifié. nekk na nga zigi na. Ibou. Ibou toi aussi tu es mon ami ah vous pas te sérieux dans la saria mais toi aussi. mais nañ takk yow tamit da ngaa war a takk jëkkër. man dañ may takk man dañ may takk kenn damay toog xaar rek. <laughs> c'est la dernière partie de votre matinale ce matin c'est à nous avec Ziggy pour parler de mode et Ibrahima pour parler des nouvelles avancées de la technologie je vais commencer par dire bonjour à mon exceptionnel ami Ibrahima. <laughs> <laughs> Ibrahima ñu ngi lay ziar. Euh, maa ngi lay fay euh, Pape Sidi di nuyu Nabou di nuyu. ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu ñi ñu seetaan ñëpp et surtout. surtout waayof on <laughs> surtout waayof. Euh, tey dañuy xool euh, semaine bi passée dama ne woon benn élément boo xam ne euh, jàllul woon. Mhm. muy pipette bi xam ne dafay filtrer ndox. Mhm. ensuite ñu xool benn bracelet boo xam ne boo ko takkee rek daf lay féexal comme clim. ay waay ak benn. du dëgg du dëgg damay waa Kaolack yëpp laa ciy commandé. <laughs> danoo tàng nun foofa. ma tey ni ma ñëwee ñàkk. voilà ñu gis lampe torche boo xam ne soxlawul pile soxlawul chargé da nga koy téye rek mu tàkk. alhamdulilah. xanaa deret a koy doxal. waxtu tàngaay yaram. technologie ngi noonu. Ziggy Faye. bonjour. damay nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci plateau bi sauf Pape Sidi Fall. <laughs> man rek nga nuyu kon <laughs> te nga war a wàcc sa bopp ba mu ngay def nii. di njool la dama xaw a njool nag xam nga rek. musoo njool. Euh, di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne chaque matin ñoom ñooy yeewu parce que xam ne. Euh, waroo liggéey waroo liggéey bëgg benn émission tax chaque fajar nga yeewu toog si télé bi di seetaan yombul donc ñu ngi leen di gërëm si fidélité bi di nuy Nabou si bu rafet bi di nuy Ibou aussi sama invité bi nga xam ne mu ngi wuy si tour Ibrahima Cissé euh, la semaine passée maa ngi ko doon wax je parlais des du brunch des créateurs bi nga xam ne dañu bëgg a constituer benn plateforme boo xam ne dañuy réunir tous les créateurs du Sénégal liggéey say ay projet pour affaire yi nu mu gën a mën a avancer xam nañ tout à l'heure dinañ ci xuus gën ci waxtaan. ayca juste permettre que mu nuyoo Ibrahima tey on a deux. Ibou Ibou sur le plateau <laughs> ñu ngi lay nuyu la dalal jàmm. beaucoup. Nabou Ibrahima euh, merci beaucoup Pape Sidi que je félicite au passage. Euh, am nga jabar moo tax mu sànni xeer waaw ah bu yàgg. ah waaw d'accord toi tu es un doyen quoi. Euh, <laughs> respect respect doyen respect respect doyen. alors <laughs> ah, un tout petit peu mais merci aussi à Ziggy. Mhm. bi ñu invité tey jii nii pour ñu waxtaan un tout petit peu si quelques activités yu ñu tàmbali bëgg. mu am feneen fu mu jëm. dans le milieu de la mode au Sénégal. mais mais juste une précision parce que moom amum jabaram man ak moom ñoo si yem parce que jabaram nekk fi donc. ça am na jabaram mais arrête mais nekku fi am na jabar nekku fi dañu ko defal appel WhatsApp. elle est à des kilomètres. donc s'il vous plaît Ziggy kaay ma dee la réglé sa place maa ngi may ñu tuuti ñu dem xooli ji te ah yaa ngi tax partie non non non s'il te plaît. mu noonu am am jabar mbaa ay jël Ibrahima pour parler technologie Pape Sidi. kii nit la yow ci dundam. musul oh xëy daal bu bees la moom bi mooy deuxième sol. on est en direct. 99 000 daal laa yor doom. merci du ma tamambeer ci àddina. merci beaucoup c'est vrai que nag c'est une belle chaussure. merci Aïcha euh, Ibrahima euh, pour baal leen ma man je suis un peu perturbée par par. très sincèrement. voilà émission. ñu enchaîner. parce que gis naa ne temps bi li ci des euh, de sànq <laughs> euh, def mais bëggoon naa en fait parce que dimanche annoncé woon naa ko mardi bële dimanche passé finalement euh, la première édition je sais pas si je peux utiliser le terme édition en tout cas la première rencontre des créateurs du Sénégal s'est passée le dimanche dernier ñu remercier endroit bi nga xam ne day ñoo leen accueilliroon pour plateforme boobu noonu ñi nga xam ne ñi ngi koy nekk di ko lancer ñu tuddee que le brunch des créateurs 221 bu fekkee ne mën na nekk nga dellusi en fait wax ñu tu nous redonnes la définition en fait de ce brunch là ak lan mooy en fait euh, lan mooy ay objectif am. ok alors brunch comme ñun ñëpp ni ñu ko xamee c'est c'est c'est de pouvoir euh, faire un petit déjeuner et voilà un déjeuner quoi. tu as du temps à américaine quoi. voilà brunch. alors. Euh, ce qu'on de faire mooy nekk boole l'utile à l'agréable en fait on a essayé de de de se mettre dans un climat agréable et que nit ñi mën a en même temps. Mmh. pourquoi cet échange parce que euh, depuis la nuit des temps ñun fii lañ ko fekk mais ay c'est comme l'équipe du Sénégal en fait ay individualité ngay gis. Mmh. ils sont très bien sur le papier mais dans le collectif. c'est toujours un problème alors loolu dañu en tant qu'observateur dañu dem ba gis ne que vraiment c'est un problème koo ci waxtaanal un tout petit peu daf lay wax un tout petit peu ne bon ce serait vraiment quelque chose de très bien que nit ñi mën a daje mën a gisee mën a waxtaan de leur problème et de trouver des pistes de solution bon mm-hmm. c'est de là que c'est né l'idée de pouvoir déjà rassembler les gens bon comment il fallait les rassembler c'est de pouvoir faire une activité euh, sur un temps déterminé avec une fréquence, on a choisi de faire un brunch un dimanche parce que les gens n'ont pas forcément le temps mm-hmm. dans la semaine. C'est des gens très occupés. Donc, euh, à raison d'un brunch tous les deux mois. Mm-hmm. Et entre-temps, les équipes travaillent sur lépp li nga xamante ni ñoom génnee nañ ko fa comme problématique. Donc, en général, en général c'est ça, mais d'où d'où juste des stylistes ñoo fa nekk. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, c'est tout un monde. Euh, il y a des stylistes, il y a des journalistes, il y des blogueurs, il y des photographes, il y il y il y a. Voilà. Donc euh, ñooñu ñëpp la ñu boole dajale leen ñu toog ñu waxtaan sur lu nga xamante ni peut-être euh, am na fu mode bi toll ñu jëm ko jële foofu yóbbu ko ci beneen niveau. voilà c'était ça. donc tu l'as dit euh, nekk na boo xam ne c'est un a pas que les stylistes je crois que loolu moo tax d'ailleurs waxoo branche des stylistes mais des créateurs parce qu'on parle de créateurs. tout a les cordonniers y a les petites mains y a les photographes aussi. parce qu'on peut pas parler mode sans parler de photographie. tout peut-être possibilité dem seetaan ay défilé à travers les photos la ñuy xam lan mais sànq aussi tu as manque de de personnel qualifié. Mm. ba tax ne euh, am na ñu si bari ñi nga xam ne chaque année dañuy obligé changer toute une équipe parce que mm. peut-être rigueur bi du benn fula bi ñuy jox liggéey bi du benn est-ce que am na en fait ay précautions yi nga xam ne yéen a ngi koy jël pour euh, au moins créateurs yi si seen atelier seen maison de couture yi ñu am ñi nga xam ne ce sera des gens de rigueur yoo xam ne même bu fekkee ne ñoom nekkuñu fi voyagé nañ wala mm. absenté nañ dinañ mën a jël liggéey bi en main pour mën ko def comme si moom il était ok donc li ñuy bëgg a def en fait li ñuy d'accord ak nit ñi ba ñu génnee seen ay problématique gis nañ ci biir nekk am na ñetti wàll yu nga xamante ni xëy na bu ñu ko defee dina am lu bëri lu mu wàññi ci problématique yooyu noonu. Mm-hmm. bon am na problème programme mentoring c'est-à-dire ñi nga xamante ni c'est des sortants et majors de de leur promotion ci école de mode yi euh, il y aura des programmes d'immersion ñoom les stylistes confirmés bon quand Sénégal nag moom ku jug rek ne styliste nga. c'est ça aussi un peu compliqué mais c'est vraiment un métier looy jàng école la génn ak sa diplôme ainsi de suite ainsi de suite. Euh, c'est vrai qu'am nay autodidacte yu ci génn mais bon voilà c'est un métier quoi. <laughs> euh, il y a un programme de mentoring. il y aussi parallèlement benn programme de formation. Mm. pour les stylistes eux-mêmes et pour leurs employés. et loolu yëpp c'est des spécialistes en fait ñoom ci seen biir ñi nga xamante ni euh, ils vraiment dans le truc mais ñoom ci seen biir ñoom ñooy ñoom la ñuy defal des programmes yi nga xamante ni dinañ mën a inviter euh, deux à trois wala cinq stylistes yi nga xamante si ñu ngi ci ñu am seen staff ñu ñëw ñu jox defal leen ay renforcement de capacité sur des thèmes bien précis ça c'est une chose ça c'est la seconde chose bon après leneen li nag mooy euh, nekk fokk ñu mën a aussi am une cartographie de lan moo fi ay lan moo fi ay corps de métier yi. Mhm. ak lan moo fi nekk comme existant ak lan la ñu mën a indi lan la collectif bi mun a indi pour mun a compenser loolu noonu afin que les gens aussi mën a nekk des professionnels te mën a def liggéey bi correctement. parce que mhm. en réalité c'est ça le problème dañu bëri ay tailleur mun nañ bëri ay nit ñuy ñaw. mais en réalité amuñu mindset lu nekk de de de de de de mën a produire vraiment un produit bu nga xamante ni au finish de qualité lay nekk. Mhm, pour respecter standard. voilà mën a am des standards internationaux parce que aussi on crie beaucoup woy nangam ak nangam la mode ni nii nii mais il faut que ñu mën a am un produit compétitif. Mhm. sur le marché local déjà parce que euh, tey. bëri na ñu fi passé devant les télé wala des personnalités wala nangam ak nangam boo leen gisee ñu sol yére bu sénégalais defar c'est mbasan la quoi wala jesner wala whatever mm-hmm. alors que en réalité les gens sont capables de faire des chemises de faire des costumes de faire des vestes, ainsi euh, a beaucoup d'intrants aussi. La hein. concurrence euh, que vous nga dem si euh, créateur bi wala ki ko styliste bi ko defar. Hmm. mu ne la 25000 la koy jaayee. en lieu et place si ba nga gis même chemise wala beaucoup plus industriellement vraiment ñu def ko ak manière bu nice wala ñu ne la Dubaï lañ ko jëndee. wala hmm. Italie wala bon c'est ce qu'on a l'habitude à 7000 bu ngay fay tu as 25000 et 7000 mon ami avec les temps qui naan bàyyi ma jël bu 7000 bi. parce que quelque part rapport qualité prix bi ngay am si que l' esprit patriotisme mais 27000 ak 5 25000 <laughs> <laughs> ak 7000 la concurrence elle est déloyale quelque part. oui après aussi. loolu bëri na lu koy expliquer ah. parce que tey par exemple en termes de production de yére les standards internationaux c'est que benn chemise bi ni par exemple sept minutes lay war a def dans la conception. pour mu génn. aujourd'hui chemise bi boo ko yóbbuwoon si benn créateur wala benn tailleur fii nii dina fa def une journée wala deux jours wala je sais pas quoi. dinañ la jox ay mille rendez-vous doo dem mais loolu li ko li koy occasionné mooy nekk y en a les autres ils travaillent avec des machines c'est-à-dire du ay nit ñooy liggéey ay ay des machines ñooy ñooy ñooy liggéey et ça c'est le fast fashion en fait. dañuy ils c'est pas forcément li nga xamante ni tey jii nii di nga ko fi gis ay benn ñaar nga fi gis fii nii ñuy travailler en série doo leen sax gis sur les plateau mm-hmm. mais ñi ci ëpp tout ce qu'on appelle créateur ainsi de suite ainsi de suite c'est des gens yi nga xamante ni ay cinq tailleurs dix tailleurs la ñu am defar seen seen seen benn concept et puis que tailleurs yi mun a defar li ñu bëgg li ñu bëgg mais derrière ça. comme la dernière fois y en a y une des participantes qui en parlait tey benn Yves Saint Laurent wala benn Dior mais esprit la lay jaay. Mhm. c'est-à-dire ils te vendent toute une, histoire. Mhm, mhm. est-ce que yaa ngi nous on n'arrive pas à vendre une histoire on n'arrive pas à vendre un rêve et pourtant li ñuy créer. Il y a toute une la racontez, ces histoires Mais ça, c'est... C'est souvent ça, parce que, en fait parce ça créateurs. loolu taxoon sax indi woon na point de divergence. ou plutôt benn benn cinq minutes boo xam ne ay werante la entre deux créateurs qui étaient là. parce que kenn ki dafa ne man su may créer affaire di ko jaay am bi lay hmm. su may créer affaire di ko jaay je retourne à la source dem fi samay maam jógee. loolu laay jaay en fait mais soo ma nee industrialisation ma jël sama benn yére reproduire si mille wala mille. dafay mel ni en fait damay damay violer samay principe pour wax rek en fait que que que gis-gis yi du benn. Mhm. philosophie yi du benn chaque créateur ak nu muy ak nu muy. tracé business mais est bi ak kii bi dina dina yomb euh, daje beeg euh, xàccandoo dóorandoo bi nga xamante ne xëy na ñoom moom lañ ci bëgg bëgg est-ce que dina dina mën nekk. il mais c'est pas forcément nga aussi il faut que mu am ay antagonisme pour mu am richesse. Mhm. c'est ça qui fait un tout petit ça veut pas dire dans l'idée globale les gens ne sont pas d'accord parce que sinon kon du ñu ñëw quoi. parce que ku nekk sa sa idée ngay liggéeyee mais bon on est dans un dans un dans un truc précis nit ku nekk da nga am sa façon de vivre sa façon de faire ak lu nga xamante ni moom ngay transmettre ça ay clients je me dis quelque de vue de de, de près la la mode sénégalaise ouais. ou la mode africaine est un peu narcissique en fait on est là en train de se faire les louanges alors que les startups dañuy créer ay ay cote tissu yoo xam ne du coton dañ koy créer léegi léegi léegi dugal ko si ay machine mu génne la ay yére léegi léegi da ngay def graphisme rek envoyé ko si machine bi ni nga ko bëggee pièce montée bi t'as pas besoin d'être styliste mu projeté la ko génne la ko à 5000 toi t'es là tu essaies de vendre un rêve 25000 d'accord si je l'achète mais mënu ma si jënd million pour nga nekk nit bu am euh, auteur u euh, Yves Saint Laurent c'est vrai qu'il vend l'âme mais après dafay dem mu defar Euh, ay ay cent mille pièces. mais en réalité c'est c'est en fait <laughs> c'est ça en fait loolu la ñuy c'est-à-dire loolooy solo su ñu mun daje ñuy ñuy jéem a daje. parce que en réalité il faut que ñu jugee ci ci état bu def ay par pièce. mu a def par par série. Hmm. loolooy solo si en fait et les gens sont d'accord en réalité que loolu moo lay jox xaalis mhm. du après su le neexee derrière Pape Sidi mun na am mariage am wala réception am mu ñëw mu bëgg benn affaire wala soxna mu bëgg benn affaire mais ça c'est un truc sur mesure qui n'a mhm. rien à voir avec euh, moo doon solo si et heureusement alhamdoulilah que les gens ont compris et ils sont engagés pour y aller mhm. voilà gis naa ne temps bi xoj nañu mais peut-être revenir en fait si beneen objectif ne nga xam ne Blanche boobu taxoon nañu organiser ko c'est pas seulement problème d'industrialisation wala xool naka la ñuy organiser collectif bi mais c'est aussi en fait euh, un prétexte pour permettre aux créateurs de pouvoir s'exprimer sur d'autres plateformes qui n'ont rien à avec les événements annuels parce que nekk créateur am benn wala deux événements dans l'année c'est pas intéressant donc ils vont trouver un moyen d'organiser des défilés privés de temps à autre de lancer des collections de temps à autre et permettre à ces gens-là de pouvoir se regrouper de temps en temps def ay ventes privées parce que derrière c'est un business derrière c'est des entreprises ne c'est eux qui les gèrent derrière aussi c'est en ressources humaines et derrière collectif bi aussi dina leen jox ay yi nga xam ne ñoo nekk pour coacher leen ci loolu gis naa ne temps bi gàtt na trop donc on va essayer ah, juste de se rattraper la prochaine fois <laughs> di di remercier Cissé bu baax pour euh, pour disponibilité ak déplacement bi nga xam ne def na ko ce matin c'est quoi le mot de la fin ben merci déjà il faut dire que loolu noonu yëpp ñuy def dañ koy tënk ci benn collectif bi defa en fu muy tënk aussi euh, une entité formelle mm-hmm. et puis après que toutes les actions qu'on va faire dafay am vraiment si des, des bases claires yi ñu koy tënk quoi donc c'est c'est ça je pense que après li mu fi wax noonu yëpp ce sera vraiment un programme incha allah am nañ am nañu xam-xam bi am nañu sañ-sañ bi e voilà. il faut mot de la fin lan la waxoon yaa ngi def. waaw ah, mais c'est le mot de la fin. c'est le mot de la fin. c'est des mots de la fin. <laughs> merci vraiment de, de nous avoir invités pour ñu discuter si si si affaire boobu nag. Mm-hmm. vraiment merci, beaucoup. waaw di remercier Nabou du ma remercier Pape Sidi di remercier Ibou ak sama invité di remercier ñëpp ñi nga xam ne ñoo toog di ko seetaan di remercier sama benn ancien collègue bu nekk Sonatel il vient de m'envoyer message mi ngi suivre émission Mamadou Bey ma koy remercier di euh, nuyu jabaram ak ak doomam. ah dee fi nekk di nuyu jabaru jàmbur yi di nuyu sa jabar <laughs> waaw di leen euh, jaajëfal di jaajëfal ñi ñuy seetaan ñëpp et surtout Ayof. surtout Ayof. gërëm ñëpp Pape. waaw euh, sant ñëpp gërëm toute l' équipe technique et on se donne rendez-vous demain mercredi incha allah ci beneen numéro ce matin c' est à nous le troisième euh, numéro de la semaine ce sera demain. Euh, waaw à demain incha allah. <laughs> Yeah.